on a besoin de sensibiliser les gens hmm? donc nous sommes des citoyens nous doomu nous hmm? am inspiration nous euh, aussi nous ne bon amna, comme nous avons lu ñu a wax dinañ ko wax xeyna suñu ko dina jariñ askan wi dinañ ko mëna dégg té dinañ leen jariñ donc euh, ci son bi maa ko défé euh, studio Euh, mu nekk sama xarit aussi fayeeku ma dara aussi moom it ak clip beeg yëpp moo ko def donc ma invité ci nag wa woykat bu mag muy Ousmane Ganguèye waa ñëpp xam nañ ko kenn dootu ko présenté donc li tax ma invité ko nag euh, parce que woy bi dama ci sentiroon voix pulaar donc pour mu am diversité voilà donc il était disponible aussi ah ak sati bi mu am ak yooyu yëpp donc euh, mu ñew ñu def ko et puis ñep di ko apprécier hein ah, voilà motax amna moyen aussi pour def euh, son single way genné ko pour nit ñi ku dégg xamni kat euh jot ci information bi donc lolu warna ku ne ci ku mën kenn ku ne euh ci li ngay ya xamni ngay toje sa bop janax kenn ku ne di citoyen war nga même commencer la sensibilisation ci ce kër def dara wax dara génn ci koñ bi def dara wax dara par rapport à la sensibilisation de cette pandémie voilà donc kenn ku ne daal am nga ci sa wàll hein, moo xam da ngay wax mbaa nga jëf pour que ñu mën a booloo xeex feebar bi mu jóge fi man gis nga man déjà man couleur yëpp laa am <laughs> waaw couleur yëpp couleur yëpp laa am c'est juste yooyu ci ay inspiration la xam nga euh, situation bu amee il faut essayer de s'adapter hmm? man gis nga rouge laay def def sama kii bu rouge hein. blanc su ma solee blanc def blanc yooyu yëpp xam nga nit ki su ko gisee xam nga yooyu c'est des informations maanaam c'est des c'est des actes yo xam c'est des actes qui parlent tey am na beaucoup xam ne bu ko gisee ah ne ah kii ni mu masque bi rafet na ah ne ko inciter moom mu dem wuti masque def ko. nga donc yooyu ay ay ay la ay ay ay ay tactique la nit ki bu peut-être inciter nit ki mu dem wuti masque. def ko voilà c'est tout loolu donc moo ma def ko def stop corona parfois ma bind sama tur parfois ma bind ci corona doo ma laal ah yooyu yëpp bu may dox deux masques laay doxantoo gis nga fii euh, gis nga ngi def mbëllee corona li tax ma ne mbëllee mooy que ni euh, corona li mu li mu bañ laa def mhm. par exemple su ma defee nii mhm. maa ngi koy tooñ mhm. tooñ bi mooy lan li mu bëgg ah, du ko am voilà li muy bañ laay def moo tax ma ne ko mbëllee corona. toog leen seen kër bu leen dëgër bopp bu kenn tukki dëkk ak dëkk docteur yi wax nañ bàyyi leen joxe loxo de leen tax soog saabu booy sëkkat mu ral sa gémmiñ bàyyi leen dajal de pour retrouver le sourire. leur est grave,